waaw Idi moom man du ci wax. pourquoi ah parce que li mu wax ñëpp dégg na ko. li mu waxaat ñëpp dégg ko voilà quoi nuance moom amul ci li Idrissa Seck wax. Hmm. donc loolu jarul sax commentaire. Mimi Touré par contre par contre je trouve quand même que dafa war a noppi hmm. parce que rek xoolal même dans la mafia adduna dafa am ay règles même mafia dafa am omerta c'est-à-dire Macky Sall nommé na la nommé waat la nommé waat la. nga génn yaa xayti laan remercier ko après nga toog tuuti jërëjëf parce que aussi Mimi Touré daa ko fee jàng kenn ba bari ñu ko name ba dégome ko. wax ji aussi dafa bari trop. nit ki nag am na bu ñu la dindee am na délai de recul boo xam ne nga jël ko tuuti sax après loo def nga def ko.